bismillah fii niin ak daala yàllaaw safi baqa abi bi fiika yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sharika lawo wasi wa ma lil waad li fiika yàllaaw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 أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألا يضر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله خدست سري يا قدوس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه وخلفائه ذوي المزايا والمكارم asalaamualeykum wa rahmatullahi suñu baay suñu sëriñ baay Muntaqa Mbakke suñu maam Bachiru Mbakke suñu maam Cheikhul Xadim radiallahu anhuma ñu ngi yëkkati kàddu yu gàtt ci ndigalal suñu kilifa gi ñu àndal di suñu baay di Ahmed Sy ñëw jóge Tiwaawan ci ndigalal kilifaam magam Seydi Aboubacar Sy alxalifatul am li tariqati atijaniya ñu ñëw fii mu ni nañu la présenté délégation bi nga xamante bi moom la ko sëriñ bi booleel mu ànd ak ñoom ñëw ngir jottalil ko ziyaaraam ak ndokkeelam ci xew-xew bu rëy bii ni mu ko baaxoo def wuutu ci ay baayam ak i magam ni ko daan defee ak ñañu jamonoonteel fa tabarakallahu mu ni sëriñ baa ngi ko boole moom ak sa doom boo xam ni mooy Serigne Mouhamadul Habib si di doomu Serigne Babacar Sy Mansour mu boole ko ak moom teg ci Chérif Sidi Ahmed Sy bu sa mbokk ma Seydi Aboubacar Seydi Abdoul Aziz Sy Al Amin ñu ànd ak seen jaam bi ànd ak ñoom di Pape Youssoufa Diop ànd ak doomam ji ba tey di Cheikh Ahmed Tidiane Gaye mi ngeen xam bu baax a baax moom taxawaay bu rafet ci diggante bi ñu ñëw fekk si fi ñi nga xam ni ñoo ko wuutu fii nekkal ko fi di dawaayir yi aju foofa Tiwaawan tey soowe fii te dëkk fii ci Touba nekkin fi nekkin wu rafet woo xamante ni bii toujours ja bu ñoo xamante ni bi jëmmoonte nañu ak góor gi dinañ ko seede loolu ni ko foofa daal ñu nga fa waaye suñu kër lañu ne yaatal ga a am gépp am na ci suñu digganteek ñoom kooko ko fa nekk di alxaaji sawru kebe mi ngi nii min min ko alxaaji euh, Modou Gueye ñu koy xam Modou Gueye ak ki nga xam ni mooy alxaaji Omar Kebe ah al alxaaji Abdoulaye Kebe ak njaboot yi ñu àndal yëpp ñëw fi waaye ci bi ñu ñëwit sëriñ bi boole an ñu ngi mi ngi bo mi ngi boole sëriñ ba sëriñ Ahmed ak doomam di sa doom di doomu xadra bi waaye it doomu diine ji ndax xadaraat diine yooyu yëpp miin nañ ko mu seen doom ji di Abdoul Aziz ñu koy Abdoul Aziz Ale Ndiaye mu ñëw ànd ak ak i rakkam fa tabarakallahu ñooñu ñooy délégation bi ñëw teewal alxaaji Amadou Faye Mamadou Faye ak Lamine Mbaye ak ñeneen ñu mën la lim ak sëñ Abdou Aziz Cax mii nga xamante ni bii mooy loxol sëriñ bi fu muy dem mooy ànd ak moom kon ñooñu mooy délégation bi nga xam ni mbokk yi bu ma fàttee kenn ñu ma jéggal ma nga xam ni rek foofu ñu yemale ko foofu ngir jataay yi xam ngeen ni lii ñu bëgg ñu bare ko bëgg kon nag nee nañ nag lu ñëpp bokk boo ci jëlee la nga am lépp am ka ka ko seqal dina loru te te lore lañuy ragal kon nag sëriñ bi ñu ngi koy yemale foofu di delloo kàddu gi sëriñ bi incha allahu taala mu mottali kàddu gi incha allah abdu gannaaw bi ñu sàkkoo ndigal euh, sëriñ Sidi Ahmed dafa wax ne gannaaw bi mu sàkkoo ndigal ci ci kilifa gi di cheikh Mouhamadinil Muntaqa ne yal yàlla dimbale ko te ko yàggal ko fi lool yal na yàlla fanam defal ko ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ci barke suñu maam Cheikh Ahmadul Xadim waaye ci barke xolam nee ak ay taxawaayam. ak mbooleem mbindaafoon yi nga xam ne. ak mbooleem mbindaafoon yi nga xam ne. ñi nëbbu ak ñi feeñ. ñi ñu gis ak ñi ñu gisul. ñi ñu gis ak ñi ñu gisul. ñi ñu xam ak ñi ñu xamul. ñi ñaan gi genn la. nee ñaan gi genn la. mooy gudd ñaanal la nga gudd fan wér ak wérle. yàlla na ko yàlla def. nee mi ngi la koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal. diine ji mi ngi koy ñaan. nee na diine jaa ngi koy ñaan. mbokk gi koy ñaan. mbokk koy ñaan. nee adduna bi it mi ngi koy ñaan. yoon wi tamit nee yoon wi itam mi ngi koy ñaan. yal yàlla mottali yëpp. na yal na yàlla mottali lii mi nee mi ngi ubbi ko turu yàlla Mbakke. di nee di sant yàlla bu baax. te lool ak nee te lottu lool ak tële ci sant ko. ndax yàlla ni toll. ndax ne yàlla moo toll noonu. ci fursa bii mu ñu may. nee ci temps bi mu ñu may. te yàlla jaarale ko ci nee te yàlla jaarale ko ci sa mbaax. li Pape Youssoufa Diop wax. nee li Pape Youssoufa wax léegi. jataay jataay ak yow. nee jataay ak yow. ñëpp a ko bëgg. ñëpp a ko bëgg. ñépp a ko nim sa itam fa tabaarakallaahu ne xanaa kay li ñuy ñaan rek ne ñun daal en tant que njaboot di ay taalibe ne mi ngi ñaan yal nañu muurloo barke jataay bii ne mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan ci barkeem yàlla bu yàlla dañ yàlla bu yàlla dañ di sëmbërtël di sëmbërtël ay xéewalam ay xéewalam ay leeram ay leeram ci suñu maam Cheikhul Xadim nee ci suñu maam Cheikhul Xadim yal na yàlla beesal ngërmande ci moom sëriñ bi ñëw nañu nee sëriñ bi ñëw nañu ci nee ci sa ndigalu rakk sa mbokk sa mbokk sa soppe sa lépp xam naa ci ay kàddoom xam na ne kat li mu taataanoon ci ay kat lottu nañu ci melal ko suñu na loolu lottu na ci melal ko ci làmmiñam te mooy mi ngi lay nuyu te nee nag mi ngi lay nuyu sëriñ Babacar Mansour di sëriñ Babacar Mansour aam li tariqati tijaniya di mi ngi lay ziyaara mi ngi lay massaw itam di ndokkeel bu baax a baax bu baax a baax. ci saa nee ci saa su nekk. ci waxtu wu nekk waxtu waaye rawatina. waaye rawatina. weer wii weer wii. rawatina rawatina. semaine yii rawatina. bés yi itam. di ñaan yàlla. nee di ñaan yàlla. nee ci mbaaxam ak ngëneelam ak tedd ngaam. di def tawassul nee di jottaliku ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yàlla nañu yàlla fayal suñu maam nee mi ngi ñaan yàlla nañu yàlla fayal suñu maam Cheikhul Xadim ngi koy wax ay nee mi ngi koy wax ay mbokk barki démb euh, wax nee dañuy wax ne suñu maam daf ne maam Ahmadou Bamba maam anhu nañ ko sant le yàlla nañ ko sant yàlla waaye loolu ñun la concerné waaye nag loolu ñun la yitteel moom ba muy dem la sant yàlla moom ndax na fa ndax ba muy dem xam na fi mu jëm xam na ñi ko gunge xam na it ñi ko gunge xam mu àndal xam na it ñi mu àndal wax na ko wax na ko it asiru ma al abraari xiina asiru wa sanna al ida anni hunaaka yooyu nag bu nekk la muy firi nee na yal nañ ko yàlla fayal nee sëriñ bi nee na nee na ngi fedd li ak bokk di yeesal it kóllëre di fedd li cofeel bu baax nee na mi ngi lay wax ne nee ku am cofeel ci yow la ku am yëg yëg it ci yow la ku la bàyyi xel la itam mi ngi lay ñaanal mi ngi lay ñaanlul mi ngi sàkku it sa ñaan nee na wax mu wax la ne lépp loo xam ne lépp loo dégg nga ko walla nga ko wala ñu dégtal la ko te dëktuwul te dëktuwul bàyyi koowul tiwaawan bàyyi du fa bàyyi nee te du fa bàyyee koo mukk noonu itam la lay seedeele la lay seedeele ne ci wàllam moom itam ci wàllam moom itam lépp luñ ko dé lépp luñ ko dégtal lépp luñ ko dégtal mbaa mu dégg ko mbaa mu dégg ko te dégtuwul te dégtuwul xam na ne bàyyi koowul fii ci yow bàyyi koowul ci dëkk bi itam ndax kat nee na lépp lenn la fa tabaarakallaahu nee na mi ngi lay sant ci sa taxawaay ci say xëy ci say gont ci say liggéey liggéey bu yaatu lool kaar kaar rafet lool kaar kaar rëy lool sell lool kaar kaar nee ci diine ji ci mbokk gi ci yoon wi ci réew mi ci àdduna yépp nee na kat wu mënti doon nee ci ëttu mbaax nee bu ñu fa yëree rek mbaa ñu gëstu fa daañu fa fekk sa jëf nee ci wax ak ci jëf yal na ko yàlla dollee yàggal yal na ko yàlla dollee yàggal. nee na ma wax la sagu sagu kat mu wax la ne sagu lislaam bi nga. sagu sagu mbokk gi nee sagu mbokk gi nga itam. sagu réew mi réew mi nga it. sagu àdduna yëpp nee sagu àdduna yépp nga. sëriñ na la yàlla dollee jàppale. nee sëriñ bi daal mi ngi lay ñaanal yal na la yàlla dollee jàppale. nee na itam. nee ngi am yaakaar. digganteem ci digganteem ak boroomam mi ngi rafetal ay njortam mi ngi rafetal ay njortam nee na nga dalal sa xel nee na nga dalal sa xel nee kat projet yi nga sumb yépp ak yi nga fi fekk lépp dana àgg ak jàmm incha allah nee nga jiite ko ñun ñépp ñu topp ci sa gannaaw yàlla nañ ci àgg ak jàmm nee xam na ne dootul guddal nee lim ko waxoon yépp dama wedam. ne dafa dem daal ba faf wedam. ndax ci wax ci kaddu yi ne kaddu yi muy wax ki mu jóge. waaye itam kaddu yi ci ki mu jëm itam. tabaarakallahu lépp yal na ko yàlla soppi muy na ko yàlla soppi muy ñaan. sa nee sa xadra maam Cheikh Seydi El Hadj Malick ñëpp ngi lay nuyu. toftal ko ci nuyoo ak ziyaara ak ndokkeelu Serigne Babacar. nee toftal ko ci nuyoo ak ziyaara ak ndokkeelu Serigne Babacar Mansour Al Khalifa. góor jigéen mag nee góor jigéen mag ak ndaw. di la jottali itam. nee di la jottali itam. nuyoo sa soppe nee na Cheikh El Hadj Malick si Maodo. ne ci yoon wi mu ngi woote. di fedd liwaat moom itam. toftal ko ci. toftal ko ci. yónneent xalifa bi. fa tabaarakallaahu. sëriñ bi daal jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. ñépp a ngi bég ci yow. ñépp ngi lay déglu. ñépp ngi lay ñaanal. yal na yàlla nangu lépp. ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam barke bis yi barke weer wi barke ki tax ñu bokk daje fi barke ki ñu di maam Cheikh Ahmadul Qadim radiyallahu anhu fa tabaarakallahu ñu ngi dollee sàkku itam. sëriñ bi. nee nga dollee ñaanal sëriñ bi. ak njaboot gi. nee ak njaboot gi. waaye duñ ko yemale foofu. waaye nee duñ ko yemale foofu. nga ñaanal réew mi. nga ñaanal réew mi. duñ ko yemale ci réew mi. ko yemale ci réew mi. nga ñaanal adduna ñaanal adduna yépp. inna lillahi nee am na ci jaam yi ñoo xam ne. ida aradu arada suñu bëggee rek yàlla bëgg. te amuñu sikk sàkk. nee amuñu sikk sàkk. incha allahu taala ne incha allahu taala. bëgguloo sax ñu wax ko. waaye yàlla boole na la nag yàlla boole na la ci. incha allahu taala yàlla bu mu nekk suñu mujj jataay. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tabaarakallahu nee ni ko Pape Youssou présenté léegi. bi budul woon ak ngant. nee sëriñ bi budul woon ak ngant. day jóg jiite njaboot gi njaboot gi jiite njaboot gi njaboot gi topp ci gannaawam. waaye ngant rek a tax waaye nee na xam na ne boppam la fi fekk te mooy sa jëmm ju tedd jii fa tabaarakallaahu nee ñi ngi dollee sàkku ñaan nee di dollee sàkkul ñaan papa Abdoul Aziz Ndiaye ak ay rakkam ak mbooleem ay rakkam ak ay magam yàlla may leen fan wu gudd ci wér ci kàttan ak yokkute ak yokkute. ci xéewal bu baax ci xéewal bu baax a baax. tabaarakallaahu nee loolu moo doon kàddu yi. nee ñi ngi dellu di jéggulu nee kat kàddu yi diis na lool ci moom ba ci toogaay bi mu toog ak yow ci kaw bu dul woon sa ndigal nee kon ci suuf rek ndax li ñu bëgg nee na ñu ngi koy mën a jële ci suuf noonu nga ko defale sa mag yëpp sa mag yëpp ak njaboot gi yëpp ba ci ki gën a tuuti ba yal na la yàlla fay yal na la yàlla sàmm na la yàlla aar yal na la yàlla wattul boppam yal la yàlla wattul boppam defal la ko ci anamuk dund ak wér ak jàmm ak jàmm ak mucc yëpp njaboot gii fi nekk itam nekkal fi tiwaawan Tiwaawan mooy Touba Tiwaawan mooy Touba. mooy Tiwaawan Touba ko binde noonu yàllaa ko binde noonu. defe ko noonu noonu. suñu ñaari maam yu. suñu ñaari tedd yooyu. noonu lañ ko dundale noonu lañ ko dundale. noonu loolu lañu digle loolu lañu itam. yàlla nañ ci yàlla saxal yàlla nañ ci yàlla saxal. nee loolu mooy kàddu yi. xam nam ko doon nam ko defee woon daaw wax na ni ren it indi na incha allah juróomi nag yu ànd ak juróomi toni ceeb ak ñeenti téeméeri litre yi dëwlin muy lu mu xeeb lool nag tey ñaan yàlla nga dolli ko ñaanal ngir bu at mu jot mu mën a yokk loolu incha allah jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, sëñ Sidi Ahmed. Eh, ñun day xamuñu sax lott nañu ci wax benn baat bu nu mën a wax bu mën a génne suñu yéene ak suñu cant suñu ngërëm ak suñu soññ suñu bopp ak suñu xol bu sedd ak sunu xel mu dal mun nu génne ci suñu làmmiñ bu mën a feeñal loolu am nañ mbégte ci rëy am cant gu eh, yi nga xam ne Sidi Ahmed àdduna ko fi kaddu yi na lépp yóbbaale na la baat tontu la yób kaddu yi yóbbaale na lépp yóbbaale na tontu li ma ko war tontu fii kaddu yi na ko ndax man lot naa ci man ko waxe ni mu nekkee fi man kon xanaa suñu borom dañ koy seeral rek mu ne ci xol bi muy yéene ji mu yëg gi muy warlu gi loolu lépp suñu borom laa koy seeral ci diggante sëriñ ba sëriñ Aba sëriñ Ababacar mu jóge ci kàddu kàddu yu jóge ci moom jéego yi jóge ci moom jaar ci Sidi Ahmed mii ak bokk yu baax yi mu àndal gis naa ko yég naa ko bu baax a baax baax lu sore sore ci man la lottu naa ci wax li ci yëg ak fa mu ma àgg lot naa ci sama làmmiñ lot na ci wax ko ñu xam ne yàlla rek laa koy seereel noo ngi sant bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay bii nga xam ne eh, Sidi Ababacar eh, feeñal na ko feeñal na ko ci jëm ji si ak bokk yu baax yi mu àndal eh, loolu réer ci man lool kon yàlla rek laay seeral sama cant ak sama ngërëm ci jëmm joojee ngeen jóge ak jëmm ji ngeen àndal ak seen jëmmi bopp gannaaw ba ma ko seeralee suñu borom di ko seeral kilifa yu baaxee mais si loolu leen ko seeralee rek eh, mu doy ndax du loo mën a wax sama lam yi waaye cant gu rëy ak mbégte mu rëy ak soññ bu rëy ak yaakaar ju rëy ju dolli ko loolu rek loolu lépp ak buñ ci sama lammiñ ak guddi loola euh, yàlla rek laa koy seetal moom mi nga xam ne amul kumpa te it defe naa moom moo rek ci am solo eh, nañ ñu seeral nañ ñu nuyul Ababacar dañ ko nuyul bu baax santal ñu ko bu baax a baax a baax ne ko moom rafet waxuma jëf jure ji sax ji jëf ci liggéey ci yoon wi ci seen jéego yi ak seen jataay bi ak kaddu yi si Ahmed yi waxuma sax loolu waaye rafet njort gi mu rafet njort ci man sama jëmm ju xeebu ji eh, maa ngi ñaan sunu borom mu fayal ma ko fayal ma ko lu kaw njortam ci dundu adduna gi ak dundu àllaxira gën a jëm loolu rek laa ci mën a feeñal ci nu ko mën a wane li nga xam ne moom laa yëg sama digganteeg moom loolu rek laa ko laa ci ko laa a feeñal bu baax a borom eh, gannaaw bu ñu ko fayee yi ju rafet ak jëf ju rëy ju ji nga xam ne feeñale na ko ci seen jëmm yi bu loolu wéyee il faut ma ma ko sama sancantu bopp sama ngërëm bopp mun ma ko fay amul ma ko fayee maa ngi ñaan ci sunu borom mu fayal ma ko ci lu kawe njortam ci yiwu adduna ak ci yiwu alaxira la ciy jiitu itam yàlla dolli ak wéram dolli fan bi ba mu gudd lool donc ñaan bu baax a baax a baax eh, lott nañu ci wax eh, li nga xam ne moo nekk bi noonu waaye nag yàlla mi amul kumpa noo ngi koy seeral ne am nañu cant gu rëy ngërëm lu rëy yëggu yëggu yëggu yëggu yëggu rëy eh, soññ gu ci suñu bopp suñu jëm jëm xeeru ji seen jéego yi ak seen jataay bi ak kaddu yi si Ahmed yi soññ bu la ci man kon alhamdulilah rabbil alamin ngi sant yàlla di leen sant bu baax di leen gërëm di gën a seer suñu borom ni noo ngi gën a feddi suñu laxasaay li nu bokk muy lislaam noo ngi gën a feddi seen laxasaay gën ko fas yéene ànd ak yéen sax dàkk ci liggéey lislaam donc li koy seeral bu baax a baax baax jërëjëf di jégalu rek li ma bëgg wax mënu ma ko wax <laughs> lott na ci wax ko waaw yàlla xam na ko kon maa ngi koy seeral di ko seeral waaw jërëjëf si jërëjëf maa ngi lay jottali tamit nuyoo mbokk soppe alxaaji Mansour suur mbay waaw nee na nee jot na teraanga yëpp ba démb rek abla xaaji laay mbay peex woo na ko ne ko sëriñ baa ngi nii sang baa ngi nii yóbbante na ma ci yow ci ordonnance yeeg dépense yeeg yëpp mu ne kontaan na yàlla na la yàlla fay. waaw loolu de wuñu ko dara. loolu kër <laughs> <laughs> xam nam fam nam fa demee. dëgg la dëgg <laughs> jërëjëf. loolu daal nu ameel ko teraanga. jërëjëf ngir ngir ngir kër ga. jërëjëf